wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal a Cheikh Seyd al Maxtaar sunu borom yàggal ko fi daldi ko kattan ba mu motilee naalam ak ay yéeneem ci liggéeyal Xaadimu Rasuul di ko ñaanal kilifa diine yëpp ak jullit yëpp ak taalibe yi di ziyaara borom atti bi Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbakke ibnu Cheikh Abdoul Ahad da koy ziare bu baax ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fii te wëral ko te dëgëral ab taxawaayam ba yéene yi mu yéene yépp ci liggéeyal ko maamam Serigne Touba mu defe ko ni mu ko bëggee ci barke Xaadimu Rasuul di nuyu jawriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bi di nuyu Serigne Sidi mi nga xam ne moom lañu doon jokkool di jéggulu sëriñ Mourtada mi doon jàng léegi ci njàng mi ñu dog ñoo ngi koy jéggulu bu baax ko ñaanal yàlla sunu boroom def ko mag te wéral ko defal ko barkeb xasaayit di sant yàlla ci jataay bii ci bis bu mag bii nga xam ne mooy bisu Cheikh Abdoul Ahad te Cheikh Abdoul Ahad waxtaane ko mooy waxtaane Serigne Touba waxtaane ko it mooy waxtaane alxuraan waxtaane ko mooy waxtaane dëggu ak dëggal ak kennal sëriñ Touba di borom tawféex yoo xam ne nag dafa bokk ci may yi yàlla may sëriñ Touba nga xam ne sunu boroom moo yor ngëneelam te ku ko soob la koy jox bu Sëriñ Tuubaa waxee ne yàlla may na ma lu kenn mës la am euh, ba noppi tekki na te kenn duutu ko am loo ca tànn rek mu xam muy jëmmi boppam walla muy mbindam walla muy njabootam loo ca tànn danga cay fekk baatu lu ko yàlla may te kenn amu ko te kenn dutu ko am waaye Cheikh Abdoul nag dafa bari ay tawféex ci Serigne Touba bokk na ci ay tawféexam mooy béréb bi mu feeñee te mooy njaareem di béréb boo xam ne bi fi tubaab yi di yóbbu sëriñ bi dañoo jàppoon ne bu ñu ko fa yóbboo am dara ci li ñu bëgg ndax xam ngeen ne jaxasoo gi nit ñi di tàmbali jaxasoo nit ci àdduna bi di dem ci marché yi loola di wàññi seeni leer tubaab bi jàpp ne bu sëñ Tuubaa demee foofa mag ñi gëm gu dëgër gi ne ci ñoom dana wàññiku fekk na am na meneen mbir yu ca yàlla lëm yoo xam ne sëñ Touba nee na buñ ko xamoon ñoom duñ sàkku sax man may dem njariñ loolu moo tax ba muy leeral ci bayit ba mu wax ne raamu masiri ila jurbel la daa lësasin law ayenu sirra maa fi sayri marraamu sàkku nañ sama dem njaareem ci sa lësësin di 1330 waaye law ayinu sirra maa fi sayri marraamu buñ xamoon la ne ca biir duñ ko sàkku ndax ñoom dem gi dee la ci ñoom képp man nag ak des la ibwaa un wa ikraamun ak des ak tedd ngay suñ borom rekk la dëkk boobu la Cheikh Abdou Lahad feeñi jamono ci 1914 bi mu feeñee jamono it Serigne Touba wax ci moom loo xam ne lu yéeme la nga xam ne keroog bi mu feeñee jamono jëmmi lislaam moom moo sigéré sigéréwu wane ne am na ndam ndax ki koy aar di ko yëkkati feeñ jamono keroog bi ñu ko tuddee sëriñ Touba moo wax ci làmmiñam wax ne képp ku mën aw turam sa yaram araamal na sawara xam ngeen ne gan gu gane si jamono ëndaale ku mën sa tur yaramam araamal na sawara nga xam ne abudul ahad mag ñi dañ ko doon bind bis boobu ci lu mel ni ay pancarte ñii di ko bind ci garab yi kenn ku nekk di ko wax di laaj ka ca des déglul ma ba xam mën naa ko nga xam ne njaareem gépp da doon riir ci abudul ahad abdul ahad ngir li sëñ Tuubaa ne ku man aw turam sa yaram araamal na sawara waaye sëriñ bi tegaat ci it ne am naa ci moom yaakaar te sëñ Tuubaa na sama yaakaar lu tas mukk waaye sëriñ bi tegaat ca leneen it bi Cheikh Abdou Lahad ganee jamono dafa wax ne fekkul ci àdduna ku ko gën te ku ko gën fekkoo àdduna nga xam ne kon nga ne lu rëy la ko yàlla tànnal def la ko ko moo tax ba ko tàggkat bay wax da ko wax ne ko zaharta fi boqaati almarjuwi bal sasihi aqamte fiha li saqin lasta muftadiha yaa ngi feeñe ci al boqaatul mubaraka di njaareem ci atum bal sasin ca nga feeñ muy atum 1332 doon 1914 nga sax fa ab diir nag su ma taqalta li tuuba bil idni mumtadila taalluman taxta xaalin xaaluhum tuddi xaw ñu jële la fa jox ko nijaayam ngir lan alquran mu teel ko watt lool ndax xafista fi damsasin kamaa nasaxta lahu fi hamsasin wifqa maa qad waada man samaxa teel a wattu alxuraan teel ko bind waaye teel a lamboo melo yoo xam ne mboole mbooleem makaarimul axlaax yépp dafa daje ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké nekk koo xam ne bu ñu ko doon misaal la bindkat ba waxoon na Cheikh Abdoul Ahad dey fatan shujaaun zarifun laysa himmatuhu ila alladi rabbu yurdi fa huwa aasimuhu nee na jàmbaar dëgg mooy Cheikh Abdoul Ahad nee na amul jenn yitte lu mooy la yàlla di gërëm rek la yàlla bëgg loola rek mooy yitte Cheikh Abdoul Ahad fil ilmi bahrun naam amwaajuhu xikamun bihis dara dur wala yaaxootu fahimahu nee na bu dee da ngay natt Sëñ Abdul Ahad ci xam-xam Sëñ Abdul géej la goo xam ne ay duusam mooy xekam nee na mooy koo xam ne it moom Cheikh Abdul Ahad natbun jalilun shakurun aabidun yaqisun salimu sadrin sabuuxul lay zaahimu mu ne sang bu mag mooy Cheikh Abdou laxat di sant yàlla di jaamub yàlla di ku yeewu di borom dënn bu yaatu di koo xam ne jiitu na ñëpp kenn jotul Cheikh Abdou laxat ca fam nekk mu ne xubbul ilaahi wa ikraamun xalaa'iquhu xelmun wa sabrun wa ixlaasun lawaasimuhu bëgg yàlla ak teral ay mbindeefam ak lewet ak mën a muñ ak sellal yooye la Cheikh Abdoul Ahad àndal mu ne nuurun li ahli huda naarun li ahli rada fulkun li saaliki subulil fawzi saalimahu nee na képp ku ne ci ak jub di bëgg lu baax Cheikh Abdoul Ahad mooy làmp bi lay niital ba nga amuk jub waaye képp koo xam ne nag ci ak ndëngte nga nekk mooy sawara wala elak ku soobu bëgg a yegg ci yàlla yit gaal ga nga mën a yëg ngir yegg ci yàlla mooy Cheikh Abdou mu ne Cheikh Abdou mooy koo xam ne kam di dalalin garibin fi buxuuri rada an qasta law laaka ardathu madalimuhu bari waa na koo xam ne ci géejug lëndëm ak alkande ak tumuranke ca la tab yaa ko muccal yow Sëñ Abdul yaay koo xam ne it fa anta mu'jizatan lil xaadimil wazari wa anta waarisuhu xaqan wa xaadimuhu mu'jiza la kawtéef laa ci yonent bi noonu la Sëñ Abdul Ahad nekkee kawtéef ci Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nee na yàlla desal na ma ci kaw suuf may kawtéef ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp ko dëppoowul ak man loo ragal rek ngay dajal aboxayta nii mu'jizatan lil muntaqa wa man lam yuwaafiq nii laaqa mattaqa mu'jiza bu ñuy tuddee lu ñuy wax mu'jiza muy miracle mooy li yàlla di jox ab yonent nii alxuraan nekkee mu'jiza noonu la sëñ Tuubaa nekkee mu'jiza ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ndax nee na sama lépp kawtéef la kulliyati mu'jizatun kon lépp sëñ tubaa kawteef la waaye ni sëñ tubaa nekke mox ji sa nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la si ab laxat nekke mox ji sa ci sëñ tubaa waaye wa anta waarisu xaqan wa xaadibuhu yaa donn dëgg-dëgg sëriñ tubaa yow Cheikh Abdou Lahad yaay ki koy liggéeyal yaa donn sëriñ tubaa dafa am ko ko waxoon ne ko fa ka annama bambal xadiimu xaqiqatan maada saqsan ismuhu abdul ahad yow de sëñ bi la gisee ni ni la natte daal mooy dafa mel ni sëñ Tuubaa dellusiwaat jamono soppi aw turam tudd abdul ahad waaye yow daal ni nga mel ci ci njàmbaar mel ko ci dogg mel ko ci jàpp ci xam-xam sëñ Tuubaa rekk nga yaa xayra man warisal xadiimu wilaayatan wa diraayatan wa shijaatan yaa aylam yaay ki gën ci ñu donn sëriñ Tuuba ci wilaaya ci xam-xam ci njàmbaar wax ko man xaasakumu bi siwa qadimil Mustafa faqad iftara ithman mubinan faalamu képp ku la natt ci kenn di la gam-gamle kenn ku dul ne yaay sëñ Tuuba rek nee na nar na nar wu rëy ndax yow mënoo doon kenn ku may sëñ Tuubaa yor Cheikh lan la Cheikh Abdou Lahad doon mooy xéewalu yàlla ci kaw suuf lan la sëñ doon xéewalu yàlla ci kaw suuf Cheikh Sidiye ba muy tagg sëñ Tuubaa dana innama cheikh neama dana mii daal xéewalu yàlla la waaye sëñ Abdou Lahad it ba ko tàggkat bay wax da ko wax ne ko yaa neamatallah fi afaaqi jumlatiha yaa man ka fi'laka lil ihsaani ma fa'ila te ne ko yow Cheikh Lahad yaay xéewalug yàlla ci gox yépp gox bu nit dem bu làmbee rek na muy daje xéewalug yàlla noonu la lay daje yow Cheikh Lahad waaye man ka fi'laka lil ihsaani ma lil jëf ji nga jëf yow Cheikh Lahad kenn jëful jëf ju tol noonu kenn mës la jëfit jëf ju mel noonu ci ak rafet akuk mat kon loolu day wone mat goo xam ne suñ boroom defal na ko euh, Cheikh Abdou mu di koo xam ne it ku jeexoon takk ci Sëriñ Tuubaa la lii xew léegi ñu naan kennal Sëriñ Tuubaa bi sëñ du laxat di kennal Sëriñ Tuubaa ñu bari ñemewuñoo wax loolu sëñ bi la doon wax xam ngeen ne yàlla lañu ñu war a gëm yàlla lañu ñu war a wóolu yàlla lañu ñu war a yaakaar te sëñ bi la fii moo waxoon fii ne gëm ak wóolu ak yaakaar ak ragal sëñ Tuubaa lañ koy def kon wane na ne bu dee kennal sëñ Tuubaa ak ber ko rek ba ko Cheikh laxat di jàngale kenn ñemewu ko te tëj ji fu neex nit taxaw kuréeli kennal sëñ Tuubaa yi du jeex nit ñaa ngi kennal sëñ Tuubaa béréb bu nekk ña nga naan fa ña kennal te kenn mësu ko ngeme ba ko suñu bi di wax bëgg sëñ Tuubaam nag la koy fooñal boo bokk na ci mbindum boppam am na xasidaam goo xam ne nanga ko tëggee yaa bi nuuri jamaalihi natakarramu wa bi xidmatin li janaabihi nataallamu Cheikh Abdou ca biir xasida ga da cee wax ni qalbi lu shukrika qad daatuhu mahabba yaa man ataani minka sirran yakkatahu sama xol bii man Sëñ Abdou Lahad di yow rekk lay sant yow Sëñ Tuubaa yow képp la bëgg yow Sëñ Tuubaa te bëgg googu ma la bëgg yow Sëñ Tuubaa man Sëñ Abdou Lahad jural na ma secret yoo xam ne dama koy nëbbu waaye du feeñ mukk wuddi wa shawqi wal mahabbatu kullaha wajahtuha lakk yaa imaaman yukramu ñetti mbëggeel yi moo am al wurdu al mahabba al shawq nit mënta jéggi état bi bëgg yooyu sëñ Blaat nee na sama cofeel sama bëgg sama nammeel kullaha lépp wajahtuha lakk yaa imaaman yukramu bu ma dee bëgg wala may am lu may yëg jeexal naa ko ci bëgg la yow Serigne Touba lakk yaa imaami xidmati wa mahabbati maa yenn xayyan anta suulil azam sama liggéey bépp ci yow laa koy jëmee yow Sëñ Abdou sama cofeel gépp yow laa koy jëmee diirub maa ngi dund sama yitte ji gën a rëy mooy yow Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou na boo ma doon laaj lan mooy sa sa ji gën rëy sa bëgg-bëgg gi gën a rëy looy sàkku gën a rëy Sëñ Abdou nee na sama sàkkuteef gi gën a rëy mooy Sëñ Tuubaa daal di waxit ne ko yow Sëriñ Tuubaa kat tasfu mahabbatu kalkali lakka sarmada insha aman bi na nataradnamu sama cofeel gii ma la sopp day sax dakk di sell ci sama xol bii ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na kanzi widaaduka wal tubaarik fi lladi qad xuttahu lii min ayaadi nee na awma benn denc awma trésor awma ndàmb awma ay compte lenn képp laa denc mooy bëgg sëñ Tuubaa sëñ bi laxat nee na samam sàq mooy bëgg sëñ Touba samay compte banque mooy sëñ sëñ samay gaal mooy bëgg sëñ Touba daal na azzi huna wa hunaka kawni abdakumu wa xadimakumu bi mahabatin la tukutabu sama tedd ngay àdduna jii ma am ba ñëpp xam ni ma mel te am tedd nga ju raw jooje yowmal xiyaam nga lu jëm maa ngi ko amee ci doon ngi ma doon jaamu sëñ Touba di liggéeyal sëñ Touba daan na bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa nag mënatuma ko nëbb bu ma doxee mu feeñ bu ma waxee it mu feeñ kon sama bëgg lépp man Cheikh Abdou Lahad mooy yow sëriñ Tuubaa waaye sama texe ëllëg it fawzi bi hubbika jaadali bi matalibi sirran wa jahran minka yaa mutaqaddam mbooleem lu ma doon sàkku di ko bëgg maa ngi ko amee ci bëgg gi ma la bëgg yow sëñ Abdou moo tax boroom xam-xam ba ba mu ñuy misaal sëñ Bilal dina ko tagg dafa wax ne abudul ahad mbakke cheikhi xudwati sanadi bal walidi xat xabaana shuhratan wa ula huwa shujaa huwa almiqdaamu qaaiduna ila siwa sirat almustaqimi bala nee na sëñ Bilal mooy jàmbaar mooy njiit li ñuy wammat jëme ñu ci yoonu jub ka xaalid ibnu walidin fi shujaati aw kabni ammi rasulillahi xul masala nee na bu ñu la doon laaj sëñ Blaat kan lay nuru ci jàmbaar ya neel moom de xam naa xaalid ibnul walid mi nga xam ne bi mu duggagul ci lislaam bokk na ci li esegal jullit ñi ca oxot xaalid ibnul walid bi mu duggee ci lislaam ñu tudde ko sayfullah al maslul mu ne ko bu ñu la doon misaal ci njàmbaar ak ku fit daal dan naan yow yaay xaalid ibnul walid wala yaay sayduna ali karamallahu wacca ci ak njàmbaaram te sëñ Tuubaa taggaloon na ko ca xasida ga tudd waxoon na ak njàmbaaram ak meloom mu ne xamaa madinatu Tuuba zaadaha sharafa wa amana al ahla wa nuzala nee na ki aar Tuuba senge ko mooy Cheikh Abdou Lahad xam ngeen dëkk bu dul Tuuba ñay nit yi àdduna sax am nañ ci sañ-sañ waaye Tuuba moom titre foncier la koo xam ne kenn amu ca sañ-sañ li li li li li yoon di am ci ab dëkk sax di ko am sañ-sañ du ko am ci tuuba mu ne yaa aar Touba yow Sëñ Lahat dolli ko ab taar sécuriser nag ña fa dëkk ak ña fa di gan di fa wàcc di ñëw yaa leen aar ñoom ñëpp dëkk boo xam ne boo doon wër marché ba doo ca fekk benn marché bu ñuy jaayee sàngara dëkk boo xam ne amul stade dëkk boo xam ne amul benn bérébu caaxaanukaay nga xam ne amul Touba amul hôtel bu nit di defee lu ko neex waaye dëkk la boo xam ne bam koy tere li fi fiy tere dana sama bakkan bii laa ci teg wa tahara ard wal aswaaq min najasin wa min xaraamin wa min lahwin wa mashtamala xëy fii tere fi tux te tubaab yi dem nañ fi ne ba léegi ñuy tere tux li tax suñu di yéeme bi muy tere tux ñi daan tux te mënuñu ko bàyyi sax mere woon nañ am na ku xoromu koo xam ne daa tàmmoon tux lool bi sëñ bi tux du du tudd turu sëñ bi laat daa muudu lay lay wax muudu lay daa muudu lay di damaa xam ne yan bi nga ko yan du ko ëttalu ndax lii muy tere moom du du kenn mën a bàyyi nga gis ne dem na ba tubaab yi sax ci béréb yu am yi mbooloo di daje yépp dañ fa interdit ko fa tux xam ngeen ne baadoolo mooy ne ci biiru oto jekki-jekki ne ne la ñit taalub cigarette wala bala place publique boo xam ne ñëpp a fay toog nga ñëw taal loolu ci Afrique lañ ko ngemee waaye ci pays occidentaux yi kenn ngemewu ko faa def bari na civilisation goo xam ne wala tey bari na ñoo xam ne melo win am buñ génnoon fii woow melo kenn du ko melowoo ci tubaab yi te melo yi tubaab bi jàngale yarub diine ko jiitu moo tax yàlla lu la tere rek ngaañe ca nekk tey jii dem nañ ba jëlale nañ ñi tux di faat nga xam ne ñoo koy tux ñoom mu faat leen cancer yi leen di jural ak yeneen yi waaye kii toog di noyyi sa saxaar si rek ay junni ñoo ciy dee at gis nga nag sëñ bi daal tere ko nga xam ne waxuma da ci ne ci saayir waaye médecins yi sax couvre découvrir lañ ñu xam ne tux li muy crier kenn xamul nu mu toll nga xam ne léegi tubaab yi ñoo koy ñoo gis ñu tere tabac di ko interdit ñoo ko daan liggéey léegi dem nañ ba di ko tere mu ne waaye walil bana walil xadimi bana xasran wa maktabatan fiha wa jaamiatan foofu ibnu jala tabaxal sëñ Tuba kër ñu naan kër sëñ Tuba mu tabaxal ko daaray kaamir te mooy bibliothèque bi defal ko université yemut ca loola it moom Cheikh Abdou Lahad mu yor melo woo xam ne mboolem ñi yàlla sédd ab cër ñëpp xam nañu cër boobu ko suñu borom jagleel ci ak dogu ci aw fit ci ak dëgër ci ak taxaw loola doy na ci misaal bi mu génnee àdduna saw tagg dutu dutu fay boroom xam-xam yi bu dajee yow yaa leen jiitu yow sëñ bi laxat nga nekk ci ak tab kenn jotula la fa daan na ko kam min faqiirin kaibin xalla saatukum wa aba yashkurukum kam kam wa kam wa kami daan ko bari na ku ñàkk koo xam ne bu ñëwee ci sa ëtt yow sëñ bi buy dellu day sant daal na bari na bari na bari na na ko shayatumu kulla ma xat kaana mun hadima min baax di waaye li dikkumu yaa safiya siyam yi daal na ko lépp lu màbboon sa ginnaaw baay yaa ko tabax yow sëñ laxat loolu Alaaji Abdou Sisi moo ko waxoon ci Cheikh Abdou Lahat bokk na ci melawoo wu ko yàlla jagleel ci bëgg sañ Tuba ay bindam ba tey moo waxoon ne ataytuka al yawma bil inqitaai kulliyati yaa xaadimal mutaa adxaltu fi jaybika yaa mawlaaya kulliyati faltafinil balaaya jox naa la sama lépp yow Serigne Touba te duutu dokk jël naa sama bopp tàbbal ko si jiba tàbbal ci sama lépp faltaxmi qalbi an iltifaati ila siwaaka an il afaati nanga ma fegal ba sama xol bii du xalam dara dara lu dul yow maanaam sama xol bu ci dara nekk lu dul yow Cheikhul Khadim kon gis nga ne daal di say ñaanit wa dumma nii ila alladina xadamu janabika la ali yaa muqaddam nanga ma boole te ña nga xam ne dañuy jóg di la liggéeyal ndax xam gi mu xam njariñ li nekk ci liggéeyal Serigne Touba bokk na ci melo yooyu ko yàlla jagle lool dafa ko wax am ko wax ne ida nnaasu xaalu man saimal wara turra ashartu ila abdil ahid alladi barra xalifatu xawsul xalq xalban wa qaalaba wa xissan wa maanan summa kada jahara dafa xam ne bu fekkee ne nit ñi laajoon nañ ma ne kan mooy njiitul mbindeef yépp nee na damay daal di junj sëñ Abdou Lahad rek daal na sëñ Abdou Lahad moo jiite bindeef yëpp nga xam ne ci ak yéemeem te dégg naa ko ci kenn ci ay doomam muy sëriñ Mahmoudan mu ne dafa am benn taalibe sëñ Abdou Lahad bu ma sa ñëw fii moom wéradi mu yabal ko sëriñ Chouaïbou bi mu ñëwee sëriñ Chouaïbou silwiise géeg teey géeg dal gi mu jekki-jekki wax sëñ sëñ Chouaïbou ne ko man de xam naa damaa jébbuloon sëñ bi laxat waaye kon dana dama caa xas jébbulu ba noppi waaye kon damay jébbulu ci yow nee na sëñ change bi na ko sa góor googu xanaa xamoo ne na ko sa góor googu Cheikh Abdou Lahad xanaa xamoo ne sa góor googu jamono bii jant bi ak weer wi mu ngi ci loxoom daan na ko jant bi ak weer wi mu ngi ci loxoy sa góor googu Cheikh Abdou Lahad Mbacké kon bu nee laaj kat mooy njiitul mbindeef yi mu ne ko moom la mu ne kat aqaama bina ad-diin ba'da inhidaamihi nahjal xaq bi sunnatil wara dafa taxawal diine ginnaaw bi mabbee nit ñi woon ci caaxaan bëgg àdduna bëgg am fo lu neex nit def mu ne kan nag moo leen jële ci loola mu ne mooy Cheikh Abdou Lahad mu ne mooy koo xam ne moom Cheikh Abdou Lahad mook Sëriñ Tuubaa benn lañ yu dakkiru na fi xaalihi xaala cheyqina xaddiimi rasuulillaahi barran kada baxra nee na bu ñu gisee sëñ Abdou Lahad daf nañ fàttali jëmmi sëñ Tuubaa melaw sëñ Tuubaa wala ñuy fàttali daal dafa xaaluhuma si yaani laa garwa fa inna tara rashahu mimma bihi sarmalan daha boo gisee sëñ Abdou Lahad rek mu fàttali la jëmmi sëriñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad moom mu nga xam ne it mépp mbir sëñ Abdoulahi Jaxate moom sëñ am sëtu Jaxate nga xam ne sëñ am sëtu ak soxna Mareema ak soxna Fat Jaxate ak sëñ Mbàkke Jaxate ñoo bokk lépp sëñ Abdoulahi ba muy tagg sëñ Abdou dafa am ay jikko yu am solo yu mu indi ci jëmi sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne sëñ Abdou Lahad de mooy faqrul muridiina man afda dama satahu li ali walidihuma man huma kasida sagub murid yi seen titre mooy Cheikh Abdou Lahad mooy ki nga xam ne jeexal na dundam gépp ci mbégteem njabootu way juróom waaye ci taalibe bi yëpp daal mooy koo xam ne it bi bab li juudin yaxiidul mar xesu naxa maa naa la maa raama man yabgi lahu masala nee na ci waamew ngëneel ci ak tabam lay sotti ci képp ku ñëw fi moom nee na kenn daal moo mënta am li muy wut ak li mu bëgg mooy kii wër ne bëgg na maa gis ku mel ni Cheikh Abdou Lahad nee na boo doon wër ci àdduna doo gis ku mel ni Cheikh Abdou Lahad mu daal di wax ne Cheikh Abdou Lahad nag mooy koo xam ne yumnaahu baxaru nada yusrahu sayfu rada yurdil ahaadi wa yuxtil xibba ma amala nee na nday juurub Sëñ Abdou Lahad géejug tab la ci bépp soppe bu ñëw bëgg xéewal waaye càmmoñ ba nag jees yi alkande la daal di wax ne mooy koo xam ne yu taabioxal mar daa amdin din yasfau an di galatin wala yubali bi la si jëhi la képp koo xam ne dangaa juum ca la ngay def seeb la jéggal la ku ko tay nag mu topp la waaw wala yubali bi la si jëhi la nag mooy képp ku réer du la faale moom Cheikh Abdoul Ahad moom nga gis ne melo woowu mu mel ci mës sa nungu ku tudd Sëñ Tuubaa boole kook dara yar nit ñi ci dëgg nga xam ne boo déggee kàddu Sëñ Abdu Lahat ga nga cay soññ man gi man alxuraan ak pas-pas bu dëgër bi ne ci moom nga xam ne saa yu tudd Sëñ Tuubaa rek tàggook boo dégloo waxtaan mu wu man di waxtaan saa yoo déggee mu tàbb ci Sëriñ Tuubaa rek da ngay yëg ci biir wax ji xam ne Sëñ Abdu mii tàggoon ak sagoom ngir sëñ Tuubaa mi muy waxtaane dogg goo ko yàlla may ak pas-pas bu rëy boobu taxoon na ba mu xam ci alxuraan loo xam ne kenn mës ta xam loola ci alxuraan doomu ju dox sëñ Mouhamadul Mamoun Mbakke nga xam ne fa laa yenn nettali na ma ne am na bis bandub alxuraan lañ teg ci biir ci kees gi sëñ ne ca geneen kees gee nekk fa ñenn ci mag ñi sëñ am satum borom daaru tuddoon na ko ca sëñ Bachiru Moor tuddoon na ko ca moom sëñ Moor soxna nee na ñuy jàng band bi ne ci kees gee di jàng ba yàgg sëñ Abdou Lahad wëq li ci poos bi yëpp jël ko ci kees gi nee na tàggoog sagoom ba ba doyatu ca mu wax ne nag wi fi waa kër sëñ Masamba Jóob Samb andi woon ci bëccëg nañ ko daal di defar léegi léegi léegi ci guddi gi ñu daal di dem fay mañetofon bi ngir xam ne sëñ bi tàggoo naa sogoom ci ci alxuraan ci ba yàgg mu ne moo man lu may bëgg a dal waat naa ci yàlla ne di band bi jàng laaya jum tudd asamaan si nee na xay sama borom xamal ma laaya ju nekk lu tax mu wàcce ko ak lu ci jublu saa yu band bi jàng rek aaya bu mu tudd asamaan si nee na nga feet suñ borom xamal ma laaya ji mu wàcce jooju ñuy wax lu tax mu wàcce ko ak lu mu ci jublu nga xam ne kon kenn mës sa mën a déggandoog sëñ Abdou alxuraan saa yu ma sa tekkee sëñ Saliou bu baax ma daana wax ne kilifa gu baax ci réew mi sëñ daa xam bu yàggoon ak sëñ defe naa dana jébbulu ndax naw gum nawoon sëñ Abdou ci man alxuraan man koo boole ci mépp mbir mu mën a doon léegi rek sëñ Modou tekki na ko wax na ko ne ci yàlla jagleel la defe naa kenn ku mas a ngemee ngemee saaga ab député sax wala nga ne ko kacc na amut waaye njiitu réew ba ndox ba noppi nga ne ko kàcc nga mag day wax dëgg loolu kenn mësu koo ngemee wax séeb ci nga ko mës a déggee ko déggaat am na ko mës a saaga ab président de ñu nettali ko kilifaam mu ne ko danga koy évité invité ko mu invité kilifa googa pale kilifa ga ñëw gis garde rouge gaa yi taxaw mu bi mu duggee ci pale bi rek daan président bi yow de xanaa ku lay saaga da xamut nga xam ne waxagun ko dara moom dañ ko dàll rek mu ne ko ku la saaga de xanaa doo ko topp ndax xam naa da xamut rek kon gis nga ne Sëñ Abdou Lahad boole ko julli nag ca palais président yemu ca mooy fi Sëñ Tuubaa jullee woon ci géej gi Sëñ Abdou ko xam xam ne bi muy bi muy dem Côte d'Ivoire wone na ci biir bato bi dem ba yàgg ki àndal mu ne ko jógal taxaw mu taxaw mu ne ko fii la Sëñ Tuubaa jullee woon ci géej gi nga xam ne loolu dalay wan ne lim xam ci sëñ Tuba ak fi mu toll ci sëñ Tuba ci jëf ju rëy yoo xam ne aw melo rek lay jàngale loola nag la muy jàngale mooy wane ne bu nu amee référence yu mel noonu ku mel ni si Abdou Lahad nga xam ne bu dee xam-xam kenn du ko jot bu dee bëgg yàlla kenn du ko jot bu dee sàmm kenn du ko jot ba noppi mu mën a mel nii mu mel ci sëñ Tuba di ko di ko jàngale di nu ko jàngal nga xam ne jom jooju la ku ne war a am ci noonu mooy jomi wéetal sëñ jom yi ber sëñ Tuba jom yi kennal sëñ Tuba tamit dëgg dafa sama kilifa gu ma nettali ne moom moom mooy bés sëñ Abdou Lahad ba yàgg mu di ko laaj da koy bés ba yàgg mu di ko laaj ne ko waaw sëñ Tuuba moom nu da laaj na ko ci réew mi ñi fi nekk ay waliyu ak ñi am ngërëmul yàlla léegi-léegi mu ne ko diw waliyu la diw am na ngërëmul yàlla di ko limal nee na ba yàgg mu ne teg nee ma ne ko waaw sëñ Tuuba nag nee na fi mu tëdd sóonu ko suuf si nee na day battal ko naan ma kooku nag kenn du ko tudd tudd ñee maanaam kooku kenn du ko tudd di tudd ñee sëñ Maxtaar Mbakke doomam mi netti na loo xam ne nee na day dox fii ci jumaa ji fakka salu bi mu fakka saloo di wax sëriñ Touba ki mu àndal wax Cheikh Abdou bi sëñ toogee na ko bi may fakka salu loo wax mu ne ko booba de maa ngi naan Cheikh Abdou Lahad mu ne ko accam maa la gën ko ma woo de boobu maa ngi naan Serigne Touba kon wóolu Serigne kenn mënu caa jot Cheikh Abdou Lahad loola nag lañ war a doon ci aw fit noonu na ko ci njàmbaar te loola la jeexantale ci njabootam gépp Cheikh Mahamadul Mourtada mii de yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko boo demoon dëkk bu ñuy wax Côte d'Ivoire boo leen laajee jàmbaar dëgg nan naan la Serigne Mourtada ngir kër Sëñ Tuubaa ya fa taxaw ak jëf ya fa taxaw walla nga dem seet bis ba ñuy tudde bisub Garam Bassa nga xool tey jii kër sëñ Tuubaa ga nekk basam xool taxawaayu sëriñ Murtada te aw fit ku yéeme la dafa am bis ñu daje fii ci kër sëñ Tuubaa bi di am lu ñuy waxtaanee booba maa nga fa ñu daje ba noppi jël presse bi di waxtaan te nu mu ñu tudd ay tur sëñ Murtada jóg ma topp ci am na ko waaw sëñ bi lu tax taxawuloo mu ne bu mënta tuddi tur koy Murtada dem ne fii léebu koy ak di di junj du ci fekk dañ naan tudd tur wi direct rek mënuñu ko man ma dem te booba kenn ni mu wut tudd tur ñoo ñuy wax kenn moom moo waxal boppam ne dañuy tudd tur wi rek moom sëñ Mourtala mu ne faw ñu tudd tur wi